maaleykum salaam euh, lay fay Père benn jeune la Père personnage la ci benn sitcom bu ñuy wax sama wujju tubaab la et mu nekk ci benn jeune griot am ci ñaari soxna di Chéri ngoone Mbaye ak Annie teg ci di góoru Mati Mbaye waaw koo koy Père Mbaye sëtu Njawar Ndella Mbaye saa saa bi Ngone man ak wuju wujju tubaab boolewuñu Ngone sama jigen la bu yag lol avant wuju tubaab avant sax lenen ak lenen ki lañu xamanté ñu jam salam et puis man ak mom peut-être problème bi nit ñi di wala soit ñukoy wax man amone moom yeg yeg bu nek suñu biir maanaam dañuy sentirante peut-être lolu mo bëri ci kanam nit ñi bañu japp ni sax mais sama jigéen la suma xarit la suma confident la et puis dama ko bëgg dama ko fonk macha allah. waaw sama complexe bon man dama bëri kersa et puis bëgguma complexe na di di ñàkk nit kersa et puis dama bëgg chaque jour nit wala soit man may def lu baax walla ma koy wax bon peut-être nak légui mu bàyyi ko xana parce que légui kilifa la mais bi may gëna nek boy dal daal ni yoy yooyu nako waaw mom sa yu masaan yew mom non lañ may yewé 2008 dafa amone ay borom ñaari tour yu ñuy te tëjoon leen ci benn prison wala ci benn bërëb même pas 24 heures ñu woote nañ leen ne ñu wax nañ leen bàyyi loolu moo ñu pousser à ce que ñun ñu def déception parce que. keps bi mi ngi bokk ci benn film bi ñu naan déception déception mooy nit bu am mberteel Ibrahima Niang moo defoon scénario boobu man nag maa jëloon loolu keps bi li tax ma jël ko mooy boobu maa doon imité Sanekh ñu bari ne kii mënul leneen lu dul Sanekh numéro 2 bon et eh, ñu ne ok loolu moo ñu poussé bi ñu xoolee rôle bi ñu war ci yedd góor jigéen ko ñu baal ma ñu war ci wax ak borom ñaari tur yi

suñu borom nag dimbali nañ ñu bañ ci duggee génn nañ ci def li ñu war def ci full ak fayda pare nañ ci mais ñu doon wax wax ci mënul ñàkk non xam nga lu tax parce que fi ma toll léegi ci réew mi la ni ma man léegi ci réew mi surtout xale yi rawatina taalibe yi da ngay romb sax ñaan la père mbaay père mbaay surtout njawar ndeela mbaay saa saa kon man amatuma droit di leen won benen image bu bokkul ak image yi ngi gis ni tay man ndax am ay xaritu gor jigen non animal bi ma gëna ragal nak jaan waaw jaan moom ñemewuma ko waaw jaan rek ak façon ñemew wallaay azim ñemew ma jaan dina ma dina ma jaaxal parce que nga am xarit bu jigéen mu ñëw ne dama laa nopp moom bu fekkoon yow noboo ko wala sentiroo nopp nopp bi ci moom ah dina la jaaxal kii ah, sama néegi néegi bakkan bi bakkan bi laa ko fep ñu defar ko mu melni comme Michael Jackson ma la wax li tuñ yi moom na graw ay bi <laughs> préféré na jabaru nit ku ñuul sénégalaise préféré na aussi tubab waaw préféré na sax indo waaw ah, ah man nak yag na ko wax man duma góor benn jabar maak moom maak moom ñi ngi xamante nag koñam parce que ma am sama benn jigéen bu dëkkoon foofu moom yaayam danaan jaay fonde man ma toog sama commune ne ma ne ko dama bëgg fonde quoi léegi booy bi traversé ma xool xale bi ma ne ko yow xale bii moom mu ni ma pourtant yaayam mooy jaay fonde ma na ko waa mais yónneel fonde xam nga góor bu bëggee dara man duma sax lekk fonde mais bëgg naa rek moom mu def fonde bi mu demee explique ko na ko sama xarit yi dañoo bëgg fonde affaire yooyu booy bi defar ñetti kopp ñetti pot indi ko jox ki nuyoo nuyoo bu sax jox ki jox ki jox kii man bi ma jox dafa am meew ma sànni sama bët si yeneen potu gis ci soow kase ma ne ah cum booy bi dóor na ma kot Wadi, dagam bi ne ko mu ne naam mu ne dañuy voyage suba mais six heures la dem dix-huit heures et dix-huit heures lañ ko wax du matin ñëw taxaw xanaa moor ba dix-huit heures yabal bagage yab bagage dawal sering bi tok ci gannaaw auto bi di dem di daw bu dugg timis gi ñu daw ba dugg park ñoko lako more baal war ngeen ko xam mor men dafa sigi rek gis gaynde mor dalantir sering baa ngi xawoon for beut mor dalantir puusaat touti gisat benen gaynde mor taxaw sering ne ko mo <coughs> mo lan la mun na ko moor na ko gaynde mun na ko gaynde ah <tsk> wàccal dàq leen waaye moor na ko nga ni mun na ko mën nga wàcc dàq leen moor na ko waaye sëñ bi xanaa dangaa gisul gaynde yi mun na ko daa ah, moo da wax mun ko sëñ bi ah, yow kay moo yow mun na ko mu avancé tuuti gaynde rangaloo ci kaw tëli bi di ŋaaŋ ba seen yii di wàcc moor di lox sëñ baa ngay xool moo jékki-jékki ne ko sëñ bi lii gaynde la de gaynde njaay mu ne ko mën nga wàcc dàq leen moor tekki ceinture ñu ne déet moor ni kaccit porte oto bi lépp moor a ngi lox moor répété sëñ bi ne ko sëñ bi xanaa xamuñ lii ay gaynde njaay la gaynde mu ne ko mën nga wàcc puus leen dañoo yàqanti moor teg benn tànk bi moor dem ba naan nii porte oto bi sëñ bi ne ko rek rek moor tund ko damay sëñ bi ne ko ah nongali mu ne ko est-ce que géwél laa non non duma géwél mais ku fonk géwél yi laa ku jox cër géwél laa ku respecté géwél yi laa profitoo nag di nuyu ñëpp di sant ñëpp di am mbégte ak contentement ci waa Pikini Production di profitoo di nuyu samay soppe mooy ñi ma bëgg ndax théâtre ñi ma bëgg ndax téléfilm ñi may teral parce que ku xam na ni artiste image am la am ñun bu ñu sañsee yéen la bu ñu waree oto bu rafet yéen la waaye yéen a baax waay di nuyu waa États-Unis wa Diba Kayta nuyu nag waa France. kiis borom costume yu naaj si. maa ngi nuyu suma yaay ak suma soxna nuyu naa ñëpp kontaan naa ci ñëpp wasalaam.